Alors, bonsoir euh, Amélie. Bonsoir Bamba. Vous allez bien va très bien. Ravi maintenant, de va. <laughs> Et le voyage Très pénible, mais ça va. <laughs> D'accord. Alors, euh, ravi de vous retrouver au Only Woman Awards. Pareillement, Un événement qui coïncide avec le mois de mars, le mois de la femme. Mhm. Et puis, euh, nga ñëw fii en tant que kenn ku war a jot Vous ressentez quoi Pas de la joie. Uh-huh. de l'honneur, vraiment. Merci déjà de m'avoir euh, choisi, merci de m'avoir euh, contacté. Mm me fait toujours plaisir d'être euh, de retour chez moi, uh-huh. mais surtout, surtout d'être reconnue chez moi. Super, voilà. super. En tant qu'actrice, formatrice, alors vous vous retrouvez euh, aujourd'hui avec des nominés, euh, bon, actrice, hein. Mm -hmm. quel est le message que vous allez passer euh, à l'endroit de ces, de ces Bah déjà un message de de plaisir, de joie. Je suis vraiment fière mm-hmm. d'être parmi mes sœurs. Mm-hmm. Mais comme j'ai l'habitude de me de, de, de me répéter, il faut pas s'arrêter là. Mm-hmm. Il faut pas se dire que c'est parce qu'on a été choisi, parce qu'on a été reconnu qu'on se dit que ça y est, tout est bon. Il y a toujours à faire. Tout à fait. Il faut profiter encore mm-hmm. des connaissances, des expériences, des relations mm-hmm. pour approfondir les connaissances. D'accord. Les formations et toujours aller de l'avant, de l'avant puisque c'est pour mhm. notre cinéma. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand euh, vous avez reçu euh, le, le message comme quoi vous êtes invité, mais vous allez recevoir un trophée? Bah, et puis vous dit... allez également remettre le trophée de la meilleure interprétation dans un rôle principal. que j'ai dit, change ton billet. et fais tout pour être sur place. Ah Parce que euh, ça me fait plaisir d'être euh, parmi mes sœurs, parmi mes collègues de travail. Et euh, parler de mes expériences, les rencontrer. Mm-hmm. Et puis voilà, un, retour, en zone, comme on dit, RZ. Effectivement. Et RZ en prise, saison 2. on dit quoi en prise. benn comment c'était sax le slogan fàtte naa sax wan da ngay. <laughs> c'est en route c'est en écriture. ok le reste demandez à Marodi parce que j'ai pas envie de me lancer dans des trucs qui peut avoir des surprises <laughs> après. okay. mais il paraît que c'est en écriture. d'accord et c'est en très bonne voie. donc d'accord. voilà d'accord ok donc euh, cette venue euh, au Sénégal. c'est juste pour l'événement ou bien pour euh, en même temps euh, les contrats pour des tournages Pour plusieurs choses à la fois. Donc on profite de ma présence ici pour faire tout ce qu'il y à faire, les projets, et puis être là euh, okay. parmi tout le monde. mais pas seulement parce que ñu ngi ci mois de mars mois de la femme mais parce que je pense que année bi yëpp dañu war a sargal suñu suñu suñu jigéen yi pour encourager leen pour que comme je dis chaque fois suñu cinéma mën a dem de l'avant suñu cinéma ñu bañ ko comparer ak ay Nollywood ak ay Hollywood ñu am mhm. ñun suñu style à nous propre mais voilà mbégte et puis euh, fierté quoi. petite question boo xam ne la dernière fois donc bëggoon nañu xam exactement ban du sortie nga am. non keroog sama xol dafa tàngoon. moom mère man lii daal vraiment en général man je fais jamais de vidéo je me prononce pas dans des voilà mais là je me suis dit que vraiment fu romb à l'extérieur ñu laaj ma waaw alors seen situation comment ça se passe vraiment ne nous faites pas honte ba la ñu parce que le Sénégal vous êtes le seul pays bi nga xam ne tout se passe mm-hmm. et actuellement di yëngatu et tout ma ne non man je pense que ñun en tant qu'acteur mm-hmm. non seulement on donne des messages pour nit ñi di reetaan nit ñi di fo nit ñi di jooy. Mhm. et tout il faut tamit ñu jël de temps en temps la parole pour mën a wax ak nit ñi jox suñu ressenti et puis tamit voilà donner un message de paix donc c'est ce que j'ai fait. beneen bi tamit mooy jigéen bu active nga ci domaine yi ngay ah moom loolu moom c'est une question de voilà d'organisation ça se gère ça fait yàgg naa ko def donc c'est pas voilà donc ça va. jàng jàng dañuy jóg bu ñu jóg rek naan dañuy dem defi casting parce que voilà ñu ñëw dóor seen perruque cheveux long ba fii ba pare ñëw maquiller def machin non il faut dem jàng def des formations euh, xam seen bopp xam seen valeur teg ko fii ci kaw pour mën a jaay seen bopp si noonu euh, comme jàng la est-ce que alors cela voudrait dire que les personnages qu'on interprète c'est interpréter simplement il faudra quelque chose comme une étude Bien sûr, bien sûr, il faut une formation, il faut apprendre déjà le personnage, il faut apprendre l'histoire, il faut apprendre le, scénario qu'on nous a donné, le contexte. Et puis voilà, se former. Voilà, Carrément. formation. Super. merci merci man tamit man tamit effectivement elle va rejoindre. Khadija. voilà. c'est vous qui avez offert les. c'est bon donc alors mbokk xarit yi ki ngeen jàkkaarloo présenté présenté ci milieu bu mu nekk muy cinéma euh, fexe na ba réew mi ràññee waaye fexe na ba réew mi respecté ko ci elle est ci li mu yëngu yaa booy namu naa la depuis entretien ba ñu ko gisee. maa ngi lay ziar ne a été pensée pour euh, a créé se contentement rek ndax xam defe naa ne artistes yu bari ñu ngi jëri ji ay trophée mën naa ne partout dans le monde waaye liñ lay jox sa dëkk moom moom moo dàq lépp euh, di ko rafet ci gis-gis bi xalaatin bi ba tey di ko def mu nekk troisième édition mbégte rek lañ ci am. Je vous le rappelle, à l'initiative de jeunes garçons qui veulent œuvrer pour que les daf lay yokk ndagaraay rek yokk nga góorgóorlu ndax tey nga liggéey ba sa dëkk taxaw ne la lii dañ la koy jox ndax dangaa góorgóorlu loolu dafay tax nga gën a góorgóorlu ci li ngay def artiste bi li nga gagné mooy li nga euh, signé ci contrat ba jàkkaarloog sa kilifa nga defal ko ko moom mu bëgg ci àddina bi bëgg ci pour man loolu mooy gagné li nga xamante ne moom nga gagné dañ koy rafetlu nag ndax dafay yokk ngóor tey li naan waaw ngóor la dafay du tax jigéen doon góor waaye dafa yokk ngóora donc loolu rek lañu ñu ko jàppee dafa rafet rek. nekk ci métier mën naa ne suufe nañ sax di leen ñaanal ngeen ngeen ñaanal ma ma nekk ak taalibe ndax moom lay ñaan man de yàlla def na ni ñi ma ci xam ñëpp ay taalibe lañ yàlla xam na ko. donc di leen wax rek nañu gën a delloo suñu bopp si suñu borom ndax ñun ak ñi ñuy seetaan lenn lañ rawante muy télévision te amaana ñoom ñoo ñu gën sax dañ leen a gën a siiw rek waaw loolu rek la ñu am ci luñ leen di jox. billaay léegi rek léegi rek incha allah rek <laughs> pourtant maa ngi soog a pare de. maa ngi soog a pare de film maa ngi soog a pare maa ngi soog a pare ah. ak yeneen ak yeneen. y a les activités professionnelles. et des fois di nga toog toog toog temps bi du la permettre nga defati ay tournage ak yooyu. Mm-hmm, mm-hmm. mais teewul suñu xool ak suñu xel. mi ngi ci écran ba léegi. études et activités professionnelles ça veut dire. activité professionnelle ça veut dire entrepreneuriat. ça veut dire euh, management de projet. Mmh. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses. Hein. Voilà. <laughs> Aujourd'hui, oui. aujourd'hui, en 2023, on nous dit 32% des femmes sénégalaises ñu ngi ci entrepreneuriat. Mhm. te yow lan ba nga déggee loolu lan la sa lan nga yëg quoi. waa am mbégte ak contentement rek. Mhm. ndax tey jii nii euh, lépp loo gis ci àdduna jigéen war na ci mën a am wàll. parce que jigéen mooy yaay. Mhm. jigéen mooy euh, rakk jigéen mooy tante tey jii bu ñu demee ba gëm seen bopp euh, xam nga euh, ne dañuy entreprendre parce que entrepreneuriat dafa métti yoon boo xam ni la yombul il faut nga ñeme déjà nga am courage ak confiance en soi bi ñuy wax loolu moo la mën a dimbali tey nga mën a kii évoluer ci entrepreneuriat effectivement en parlant d'évolution vous êtes passé du cap d'actrice mhm. euh, de celui d'une scénariste, mhm. productrice. Effectivement. Comment est-ce que ça s'est passé, transition ah c'était pas du tout facile parce que quand même euh, dina soxla nga am ko am expérience ku la formé uh-huh. ku lay tete wala ni yoon bi nii la parce que mënoo jógee ci kabu actrice uh-huh. ñëw nekk productrice sans pour autant nga jàng ci ñi nga xam ne tey ñoo la ci jiitu donc c' est une chose qui n'a pas été facile pour moi comme comme ñëpp ah entrepreneuriat mooy li ma wax léegi. du lu yomb mais quand même boo amee courage nga am vision nga am sa objectif donc je pense que ça peut se faire ah. et comment ça de consortium. oui euh, ça s'est très bien passé. ça s'est très bien passé euh, première saison bi je pense Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët. Euh, diffusé nañ ko sur ITV. et puis mu nekk euh, loo xam ni sénégalais accueillir nañ ko. macha allah et puis suñu fierté la daal. c'est un projet réussi on peut dire. super et nga ñuy waajal ci Sénégal waaw di waaw di di waaj lu bëri bëri rek di waaj lu bëri xam nga ñun on est des sénégalais donc suñu fierté tey suñu ndam mooy Sénégal donc lépp lu ñuy bëgg a def rek tey dañuy bëgg maanaam porte drapeau Sénégal ci kaw a kaw a kaw donc euh, waaw xaar leen ñu rek daal xaar leen ñu incha allah. des cultures urbaines. instant bi maa ngi trace en tant que responsable de programme bu ma nekkee vingt ma woon responsable de programme mais bu maa ngi trace en tant que responsable de programme ak émission génération 2.0 boo xam te ni beneen émission la et puis ba pare euh, émission génération 2.0 maa ngi koy def ak yeneen ñaari ay deux autres personnes waaw vibe moom man kese maa fa nekkoon te génération 2.0 c'est différent de Tal Show digital am sure. Vibe seen rajo digital Trace FM aussi seen rajo digital yan concept émission nga war a teg yoo xam ni sénégalais yi ñëpp di leen déglu si Ndiaga Ndiaye si taxi ñëpp di leen déglu parce que dañuy wax que ni Trace rajo tubaab la ko dafa bëri wees wees wolof bi bëreegul ñu fay nekk yëpp mesdames et messieurs la ñuy wax wax français. <laughs> mais Trace Sénégal la bon rajo digital rajo ak digital parce que bokkul xam nga digital moom ci internet bi la. parce que xam nga bu nekkee ci bus yeeg ci la ñuy déglu donc Euh, ci digital nekk tamit mais man ci rajo bi laa nekk ci rajo bi laa nekk def li Sénégalais yi bëgg. kan man. rajo bi ci boppam. parce que ah. rajo bi non ça dépend ci li ngay déglu. waaw ça dépend ci li ngay déglu man moom sénégalais la yow sénégalais laay ah, def bëri ko de. bañ a instant bi commencé nañ Tracity ak ki nga xam te ne mooy Diaw Ketchup mbalax bu saf-saf waaw dañuy cons ba 13h 9h 13h Diaw Ketchup moom dégg na tubaab waaye lakkul tubaab moom. man moom ci rajo bi moom <laughs> dégg naa tubaab waaye làkkuma tubaab waaye nag sa euh, fait une semaine ci laa jógee suñu maison mère bu nekk euh, France te dama demoon pour yox ay lijaas yi donc loolu la donc xam nga gars yi dañuy gis ni bon c' est c' est dommage mais dañuy gis ni lu lu lu organisé lu carré dañu jàpp ni yëfu tubaab la fekk ñun ay Sénégal ay doomu Sénégalais lañ olof la ñuy làkk dégg nañ tubaab olof la ñuy làkk waaw muy noonu. Tall un animateur qui est bon à la radio mais qui n'est pas du tout bon à la télé nit ñi loolu la ñuy wax. Mm-hmm. waaw lool moo tax bu ma jugee Vibe Radio dama créé lu ñuy wax One Nation TV moo nekk nii mooy la première télévision des cultures urbaines parce que maa ngi doon joxe benn émission léegi télé laa waaw maa ngi ci rajo mais créé nañ naka nga gisee concept bi Only Woman. Only Woman Awards première édition bi ci Tal Rek Show la woon donc sama yëf la du sey boo xamante ni moom ak équipe am vraiment nekk ay ndaw yoo xamante ni moom ñoom def nañ li xam xamante ni mooy sargal jigéen te man dama bëgg jigéen bëgg sama yaay sama soxna samay samay samay doom ñaari doom jigéen laa am donc man maa ngi ci biir jigéen ñi donc lu mu def noonu Only Woman Awards mu nekk lu rafet lu nice lu normal dañ ciy ànd. macha allah merci grand jërëjëf.